Je m'appelle Mouchessen Sen, euh, Ibrahim Sen. Donc, euh, je suis natif de cette localité, de de cette commune. Euh, donc, aujourd'hui, on a jugé nécessaire d'initier cette rencontre pour permettre à toute la population de la commune, sans exception, de se réunir pour discuter sur les véritables problèmes de cette commune. Parce que, comme vous l'avez si constaté, cette commune souffre de beaucoup de maux. Aujourd'hui, comparer cette commune aux autres communes qui nous entourent, elles ne sont même pas comparables. Parce que justement, on manque de tout. La commune de La, commune de je dis bien. On n'a pas de doute. Actuellement, sur le volet santé, il y a des difficultés. vous, vous ne pouvez pas imaginer que cette commune aujourd'hui a un seul poste de santé qui polarise 12 371 habitants. Malheureusement, ils ont juste un budget de 600 000 par année. C'est inadmissible. La dotation en médicaments, c'est 800 000 par année. C'est inadmissible. Aujourd'hui, la SEMI leur doit 3 millions. 3 milliards du moins. 3 millions du moins, excusez-moi. Donc tout ça, c'est des difficultés sur lesquelles, en tout cas, les gens doivent réfléchir pour trouver des solutions. Euh, euh, par rapport aux infrastructures, comme vous le savez, en venant ici, certainement vous avez bravé de la poussière parce que justement, jusqu'à il n'y a même pas un mètre de route bitumée. Donc c'est une latérite qui a été très mal faite. Oui. Alors, ce qu'on veut. C'est une latérite qui est très mal faite. Ah, Et aujourd'hui, on réclame une route bitumée. Parce que justement, comme vous le savez, cette route latérite crée beaucoup de problèmes. Côté santé, il y a des problèmes sanitaires. Côté environnement également, il y a des problèmes. Et juste pour vous dire que, point de vue côté santé, actuellement, il y a une recrudescence des maladies pulmonaires. La tuberculose est revenue, alors qu'il n'y avait pas de tuberculose à Mais avec cette route-là, la tuberculose est revenue. Donc, il faut... Il faut butumer cette route. Et là, vraiment, on interpelle le président de la République, mhm. son Excellence M. Makissal, qu'il vienne en aide à cette commune. Cette commune souffre énormément. Énormément. Les autorités qui sont là, franchement, ce qu'ils disent et que la réalité est différente. Donc nous demandons au président vraiment de nous venir en aide et véritablement de venir voir l'état de cette commune-là. Euh, l'autre aspect, c'est par rapport à tout ce qui est euh, secteur social de base. L'électricité, c'est un problème. Aujourd'hui, la couverture n'est pas complète. Et je crois que les pancartes, si vous les visualisez, partent d'elles-mêmes. Pratiquement, il y a pratiquement la moitié des villages n'ont pas d'électricité. À part les grandes, euh, à part les gros villages, il n'y a pas d'électricité. Donc, il va falloir maintenant euh, vraiment procéder à une couverture complète de l'ensemble des villages de la commune. L'autre aspect, c'est le problème de l'eau. Mhm. Il est inimaginable qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, les gens bravent les puits pour avoir de l'eau, et des kilomètres parfois. S'il y a coupure, pratiquement le seul forage qu'on a a été construit en 1991, 27 ans, imaginez -vous. Nous sommes pour la disparition du, comité ad 27 ans. Qui est là depuis 2009. 27 ans. Imaginez-vous un forage qui a été construit depuis 1991. Ça fait 27 ans aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la demande est tellement importante que le forage ne peut plus satisfaire cette demande-là. Et le problème, c'est quoi Le forage fonctionne un jour, tombe en panne une semaine. Et les gens sont obligés de braver, d'aller vers les puits, d'aller même dans les autres villages pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce que ça crée comme maladie en termes de potabilité de l'eau C'est un problème énorme. Donc vraiment, tout ça, c'est des aspects sur lesquels il faut que les gens nous aident. Côté enseignement, imaginez-vous une commune comme Diane Sira, qui n'a même pas de lycée. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc, c'est inadmissible aujourd'hui qu'on ait cette commune de cette envergure, qui est la commune la plus grande dans l'arrondissement de Tchénéba et qui ne peut pas euh, avoir un lycée. C'est inadmissible. Nos enfants, s'ils sont au BFM, abandonnent leurs études. Donc, il y a un taux euh, de déperdition scolaire extrêmement important. Parce que justement, les gosses, après avoir eu le BFM, n'ont pas une famille d'accueil. Donc ils n'ont pas une famille et certains sont obligés d'arrêter les études euh, au, troisième. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Donc il faut un lycée. Côté éducation également, il y a un problème. Aujourd'hui, on a une, école scolaire actuellement qui ne peut plus absorber des élèves parce que justement on a le trop plein. Donc il faut une seconde école primaire élémentaire. Mais également. Décidément, comme qui dirait que euh, euh, manque de tout. Manque de tout. Cette, cette commune manque de tout. Parce que justement. Les responsables qui sont là manquent de vision. Il faut oser le dire. Moi, j'ai toujours suggéré au maire que cette commune regorge de potentialités en termes de ressources humaines et de moyens. Malheureusement, il faut un leadership fort pour fédérer ensemble ces forces-là, pour qu'ils puissent prendre en charge le développement de cette commune. Tel n'est pas, le cas parce que justement, il y a des guerres politiques, il y a des, des, politiques qui font qu'aujourd'hui, cette commune ne peut pas avancer. Ça, c'est inadmissible c'est inadmissible et qu'on ne peut plus, en tout cas, continuer à, gérer cette situation. Donc, j'appelle le président, et le président de la République, son M. Macky Sall, et toutes les autres de ce pays à venir régler le problème de Ndiaye. Vous un combat citoyen ou politique, vous Citoyen, moi, je n'ai jamais mis dans un parti. Bon, je parle à la télé, hein. on m'a jamais vu militer dans un parti. Mais il y a des, membres de l'opposition dans ce collectif. bon, en tout cas, de toute façon, même s'ils sont membres, c'est les citoyens du pays, de, la commune. Mais en tout cas, moi qui vous parle, et qui ai pris l'initiative d'organiser cette rencontre, je n'ai jamais milité dans un parti et je n'ai jamais fait de la politique. Mais quand même, ce qui m'intéresse, c'est la commune, c'est le développement des citoyens, c'est le développement des populations la prochaine étape. Parce que comme vous le savez, ça c'est juste, on voulait en tout cas créer un déclic. Le déclic c'est quoi C'est véritablement permettre, conscientiser la population et même toutes les autorités que maintenant Dieu ne doit pas rester croiser les bras, Dieu doit se lever debout comme un seul homme pour revendiquer l'intérêt de, de cette commune-là. Et la prochaine étape, comme vous le savez, il y aura un grand forum un forum, je dis bien, un grand forum qu'on va organiser ici, dans la commune, et qui va regrouper l'ensemble des acteurs et toutes les personnes, les fils de ce terroir, même qui sont dans la diaspora, on va les convier à venir assister véritablement à ce forum-là qui va aller en profondeur sur toutes les difficultés liées à cette commune. Donc ça sera vraiment un diagnostic sans complaisance pour un peu identifier l'ensemble des problèmes et pour pouvoir euh, naturellement trouver des solutions appropriées. Ndiaye deuxième vice président conseil de la jeunesse Sirah, n'est représentant Diol euh, Ndiaye en même temps di représenter commune bi ndax May, deuxième vice président comité de la jeunesse bu Ndiéyène Sirax. Wa tawat ah. fi wax nii yëpp ci sa gis-gis. Euh, lan moo yéxal ba sa yi amagul. wa tawadi mom kilifa yi fi nak yene len fal ñu ngeen ci sen ñettelu mandat. yéen len wolu bu ngeen leen wóolu woon du ngeen. waaw la depuis bi commune Ndiéyène Sirax nekkee 1972 ba légui jafé jafé yi nga xamné ni mom la bëgg wax dafay nekk te jogu fi muy li démé ni ci électricité bi comme niko ko waxé ci commune ndien rek ngay gis fil otation tim ben village dem ci benen village te wàccewuñu ko fi rek lañ koy gis sa bu len nexé man nañu jël caméra yi ñu xol am dëkk yo xamné ni otation mi ngi len romb te amuñu ci waaw dëkk yi nga xamné ni ño ëpp ci commune ndien Sirax amuñu électricité dëkk yi ko fi am moy dëkk yi nga xamné ni moy yu xawa mag yi nga xamné ni haute bi dafay jaar mais décentralisé wuñu ko mu dem ci yeneen amu ndax boo demee ci village bu mel ni Jolkaat 900 mètres la ak fil rotation bi fi mu nekk te ba tey amul courant nga dem beneen village bu nekk bu mel ni Ndimb en même temps 2 kilomètres village yu Ñaama noonu Mbarjaak noonu. ay 100 mètres am na fi yoo xam ne nii amuñu bu loolu wéyee ñu wax ci li nga xam ne nii mooy commune Ndiéyène dafa am ñaari route muy route numéro 1. xombol njeen mbulaxteen fisel mbadan tiajay ñu bëgg ñu goudronné ko bobu it bu passé ñu amaat benen seconde route bo xamna ni xombol jol njege ñaaw sanjara muy seul commune bo xamna ni ñaar route yoy mo ñu tejj nim ñu tëjee moy commune njeen sirax amul dara dara dara lo xamna ni bo fi bëggee dem comme niko nit ñi waxee mu yomb ci ñun en même temps arrondissement ci na ba ñu nekk commune bi nga xam ni ñofi ñoo bay li ñi bay fi lay yaq parce que amuñu dara lu ko génné amul dara lu ko évacuer té ñun ñu nekk fo xam ni ñun ñi ngi nekk ci digënté Dakar ak Touba nekk ci diggante Tiwaawoon ak Mbour ñu doon commune bo xam ni buñ ñu jappalé ñu dem parce que fiñu ñu nekk mooy xolu Sénégal mais amuñu dara dara dara dara lo xam ne jàllee ci bu loolu jàllee ñu dem ci wàllu sant bi sant bi it moo gën sooxe fii waaw gars yi wax nañ ci duma ci dellu si waat bu loolu jàllee dak communautaire yi ñi nga xam ne nii day am ci commune ñun ñun yaakaar naa ne Sénégal ñu nu ko fi gën a yayoo bari bu bu ma nee am na mais bariwul parce que ñun ñooy ñoo xam ne nii boo ñëwee tey jii di nga fekk ñu sur le terrain di liggéey ak seen moyens ñi nekk ci ñi nekk ci teen pourquoi pas ñun mënuñu cee am communautaire yooyu. Babacar ndax ci bi pour jot seen yéen ñun ci lañ ndax depuis bi nga xamee ne ñun dañoo judd fekk fi suñuy mag ak suñuy mhm. man damay politique man APR laa bokk mais lii du politique lu ñu a la man APR laa bokk mais lu ñu war a la parce que l'élection élection nous ñun voter comme tout le monde mais là, nous avons oublié oublier commune devons communiquer commune pauvre Sénégal dara amu rien ne va dara dara dara dara dara dara parce que j'avais j'avais ci dëkk bi ñun nekk ci parce que dëkk dara tous les points sont morts même nit ñi fi nekk sax dañoo dee dunduñu suñu tali bi waxatuñu ko ñun bëgguñu les cailloux rouges dans notre route là nous voulons prendre des cailloux rouges nous voulons. Hmm? ok dañu bëgg ñu defaral ñu suñu suñu suñu école bi lycée bi bëgg ñu defaral ñu lycée bi en plus dëkk bu amul. luuma mënul avancer suñu dëkk bi amul luuma suñu dëkk bi amul marché hebdomadaire jigéen ñi ñu sommes des femmes de développement mais kenn amul lu la développé dañuy at lan kan la ñuy waxal Macky Sall mu xool ñu li ñuy jafe-jafe yi ñun xamuñu ban Sénégal lañ bokk ñun waa Ndiéyène xamuñu ban Sénégal lañ bokk ñun dañu nekk Ndiéyène sax dund ñu deewuñu nous sommes des morts vivants. deewuñu dunduñu kon ñun Macky dafa war a xam ne ñun ñu commune la ñu yor daf ñoo war a gis ci dëkk bi ñu feeñ ci dëkk bi suñuy besoin mu defal ñu ko pourquoi pas bi mu ñëwee njeen si dañ ko même pas deux ñu fal ko président de la république kon dafa waroon a dellu si waat njeen si décoré leen xool li ñu manqué mu defal ñu ko Seynabou ñun dañu sonn wax jigéen wax jigéen wax kër gi waaw jigéenu njeen si wax yan jafe-jafe ngeen am jafe-jafe yu dul jeex lañu am waaw tënkal ñu ñaar ba si ñett ngi am am suñu forage bi chaque mois weer bu jot dina paan juróomi yoon benn certain ten lañu am fii teen bi amul kubéer Ten bi amul kubéer dañuy koy bàyyi noonu bu forage bi coupé ñu dem si ten bi di root te ndox bi ñuy root ñun ñun ñi nga xam ne ñoo ci booru teen bi dañu sonn parce que élèves yi bu ñu génnee dañuy xëcc baag yi pour naan da ngay gis benn xale boo xam ne day bëgg a dugg ci teen bi. ndox bi wóor na. ndox bi c'est pas sûr wóorul parce que ndox bu amul couvert c'est pas sûr pour nga naan ñun dañoo ne ci coono Macky Sall nañu xool nañu gestu ci dëkk bi lañu bokk ci réew mi lañu bokk. lycée bi nañ ci wax même pas primaire bi grande section. petite section amuñu ko. santé bi suñu fii amul poste poste de santé la ñu yor yoruñu hôpital. ngeen sage-femme yéen jigéen ñi. par non non. na bu wax ñu rek amuñu amuñu ko amuñu ko amuñu sage-femme ambulance amuñu ko. jigéen bu matu matu balaa ñu lay évacuer pour nga dem xombar rek oto bi dina la rëj rëjee ba bala ngaa ñëw ba moytu di nga ànd ak leneen kon loolu Macky Sall nañ ci xool nañ ci gestu ci réew mi lañ bokk. yéen jigéen ñi jigéen pare ngeen daal pour xeex pour am seen àq. bien sûr waaw waaw parce que dañoo sonn. je vous remercie. man Ibrahima Sène laa euh, en fait man m'a initié rencontre parce que je suis un natif de cette commune de Dieyène Sirakh. lu waral tey seen génn bi. génn bi li waral mooy dañu xool ne dëkk bi avancé wul commune bi demul parce que li ñu de dafa bari tali amu fi. lycée amu fi ndox mi ça pose problème courant amul ci dëkk yi donc jafe-jafe yu baree baree baree lycée amu fi également et loolu mënuñu ko nangu parce que commune bi toll ni Dieyène Sirakh gëna reuy ci arrondissement Thiénaba nga xamé tay Ngundian Touba Soul Ngundian, Toubatoul, vraiment toutes ces communes-là maintenant disposent de ces infrastructures alors que cette commune ne peut pas avancer. C'est inadmissible. 37 villages. 37 villages, Akaï Amon, en termes de population, la population est arrondissement Tchereba. Donc il est inadmissible que jusqu'à présent on n'ait pas de lycée. Donc il y a des gens qui ont euh, dañu bëgg rek justement képp ku juddoo fii yaroo fi mhm. ko originaire ci commune bi ñëwaat mhm. ñu xool càmbaar commune bi xool ba xam naka lañ mën a jëlee en charge son développement parce que quand même les gens sont courant bi également pratiquement à part dëkk yu ndaw yu xaw a mag yi ñoo am courant te courant bu ñëwee bon comme Diène Sirax ay Ndouf Ndengler mooy dëkk yi nekk ci tali bi mais pratiquement boo xoolee en profondeur les autres villages amuñu courant amuñu courant donc loolu jafe-jafe la jol euh, jol kadd jol Dakar euh, Parar Bako Candigé donc Mbarjaak bi nga xam moo koy jege Xombol amul courant pas normal c'est pas normal donc vraiment côté courant il y a un problème côté ndox mi également comme ni ma ko waxe forage bi fi tabax 1991 lañ ko tabax ça fait ñaar fukki at ak juróom-ñaar y a y a un problème parce que légui population dafa yokku jur gi yokku na donc la demande devient importante donc naturellement il faut trouver une solution pour ça li ci dess également moy lycée bi donc lycée amul xalé yi bu ñu brevet pratiquement duñ am fuñu dem donc ñu bari dañuy perdre seen jang ci niveau troisième donc vraiment loolu aussi il faut euh, président de la république son excellence monsieur Macky Sall jàppale ñu xamné ndaje bi ndaje politique. franchement politique bu ñëwee kenn ku ne foo ko neex na far. mais quand même bu fekkee ne intérêt askan wi moo nekk en jeu il faut que tout le monde jóg soulever pour wax pour que ñu mën ko donc on l'interpelle sur cette question là sur l'ensemble de ces difficultés de ces difficultés pour que mu ñëw jàppale tali également bu ngeen xoolee pratiquement rang-rang. la donc euh, rang Rang, bu métti bu bon la ni ñu ko defaree baaxul donc euh, véritablement dañu bëgg ñu goudronner tali ñu goudronner tali bi te boo xoolee rang Rang, bi li muy créer ci wàllu feebar ak ci walu environnement bi euh, dafa jéggi dayo donc vraiment nañu buté métalli bi euh, ambulance bi ogi bo xolé tay commune ñu gëna ndaw Sénégal am nañu ambulance nous on ne peut pas avoir d'ambulance. pourquoi tay bu évacuer maladie c'est des difficultés euh, parfois c'est moi même qui prête mon véhicule ak donc c'est des difficultés il nous faut cette ambulance là pour pouvoir évacuer rapidement donc il faut que ñu mettre euh, ambulance bi ñu jot ci pour que mu mën ku feebar ñu mën ko yobbu ci ay anam yu yu gaaw parce que quand même njéen mënul tok ba heure bi té mënul am ambulance té bo xolé amna ay gox goxaan yu gëna ndaw njéen tay amna ñu ay ñaari ambulance ba ci ñetti ambulance donc vraiment nañ ñu dimbali pour am mais surtout presse bi ñu bëri xamoon nañ ko jafé jafé toujours ñu ko wax liko waxat légui ndax da ngeen amul safara non euh, saafara bi amaguñu ko mais ñu ngi koy wut parce que saa comme ni ma lañ ko waxé tay buñ fi génné ci rencontre bi dinañ oo ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk commune bi ñu waxtaan